bu weesoo loolu ministre wax na ko ànd nag ñun ay campagne 2017 mën naa ne 2017 euh, la ñu door li nga xam ne moo indi trophée bi fii mu ñëw nekk ak ñun dëkk ak ñun bés mu nekk muy ñaan di dem stade di ñu xelal euh, ci ay tegtal yu bare mu teg ñu ci yoon ba tey ñu mën a euh, am li nga xam ne. waaw waaw moom defe naa liñ koy jàppee rek mooy modèle de gestion bi nga xam ne. moo ñu may njëkk Sénégal dem coupe du monde 2002 dem euh, euh, maanaam li nga xam ne mooy aussi CAN 2002. parce que moom moo mun naa wax le premier modèle de gestion moderne de notre football moom moo ko fi dugal ba ñu commencé si am ndam te ñi topp si ginnaawam bi ñu ñëwee ci loolu la ñu wéy donc voilà.